ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di jaawa jallo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen fàttali ne rek ñu sant yàlla buur bi ñu may ñu fekkee yowmul jumaa muy bés ni ki tey bésu arjuma ba ñu yàlla wërsëgal ni mu doon ngëneel bu mag bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngi joxe ngëneelu bés bi mu doon bés bu bari ngëneel waaye ñu delloo ci rekk mooy juli fajar ba jullit yi daan joxe ci néegu yàlla waxtu su néew ci ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam baaxee ñu fa ñu mëne ñu afdalu salawaatu inda allahi salaatu subh yowmu aljumaati fi jamaa mooy bésu àjjuma bokk na ci ngëneel ba ci nekk njëlbeenu rencontation ba doomu adama bi di rencontre ak boromam njëlbeenu audience ba doomu aadama bi di amak ak boromam waaye njëlbeenu jëf bi nga xamante ne doomu aadama bi dina ko jëflanteeg boromam jalla wa ala yonent bi nee nañu ba yàlla sopp fa moom gën ci jëf bu gën a màgg fa yàlla mooy julli suba ci mbooloo yowmul jumaa yowmul jumaa jullit bi julli ba muy julli ci mbooloo waxtuy fajar yàlla xamal yenent bi sallallahu alayhi wa ne ko loolu jëf ba ma sopp man yàlla jëf ju am place bu kawe la fa man yàlla jalla wa ala ndigam yonent bi moo ñu leeralal jëf ju noobul bu mel ni julli suba ci mbooloo yowmul jumaa da jëf bu yàlla sopp fa moom kon képp ku ko yàlla manloo képp ku ko yàlla jàppandalal bi nga dégg noddkat bi di nodd ci jàkka ji bi mu àgg fa mu naan assalaatu julli xayrun moo gën minal nawm nelaw ba ngeen di nelaw kon kenn ku nekk ci dafa war a bàyyi xel ne julli boobu de mooy njël njëlbeenu audience ba mu am ak boromam yal nañu ko yàlla nangul bokk na rek ci ngéneelu yowmul jumaa njël njëlbeenu audience ba ñu am ak suñu borom jalla wa ala lépp lañ ko jaamu ci bés bi yal nañu ko nangul waaye njël njëlbeenu audience bañ doon def waxtu su néew ci ginnaaw yan nañu ko yàlla nangul bu ko nangoo yan nañu ko fulandil bu ko fulandee tamit yan nañu ko yàlla dencal fa moom bi keroog bés pénc ñuy dajek moom mu duñu ko fay amin ya rabbal alamin yàlla bu ñu def dara la koy yàq ñuy ñaanal way dawlu ñi yàlla leen yàlla yërëm yàlla leen yàlla xaare aljanna nasaluka allahuma an taxfir mawtaana wa mawta almuslimin allahuma axfir lahum warhamhum wakrim nuzulahum wacha madxalahum waxsilhum bilmaai walsalji walbarad wa naqihum min addunubi walxataaya kama tunaqi thawb alabyad min addanas amin ya rabbal alamin ndax lii mooy àq ba warloo ak ñoom duñu togg ñam ba lañ bañ di jox duñ leen yóbbul ndox ba ñuy jëfandikoo waaye lenn rek mooy la leen di fekk foofu ñu tëdd ci seen tiraayu digg boobu di barsax mooy ñun ñu ñum ñu fi nekkandi ñu di leen loxo di leen ñaanal yàlla duñ leen ñaan dara nag dañ leen di ñaanal yàlla ah, waaye dawlu kenn du ko ñaan danga koy ñaanal waaw ah, danga koy ñaanal kenn du ko ñaan de waaw ah, dañuy ñaan yàlla yàlla na leen yàlla jéggal waaw dawlu kenn du ko ñaan dangay ñaan yàlla mu jéggal ko danga koy ñaanal yàlla koy ñaanal yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog bu saxaabi bi faatoo ñuy joxe ginnaaw buñ ko defaree bi ñëpp jóg di jox ginnaaw daf ne na ngeen ko ñaanal ndax fu ne nii ñoo ngi koy laaj ñaanal leen ko yàlla saxal làmmiñam mu war a tontu question ya ko malaaka yi di laaj yaa abdallah man rabbuk waaw yow jaamu yàlla bi ana kan mooy sa borom tiitar ba nga rangoo doomu aadama yi lañu la doon wooyee monsieur le directeur monsieur le ministre monsieur monsieur monsieur le président ab bépp tuur rais faxaama faqih ulama alim ustaas imam kenn du la ko wax ci biir bàmmel foofu yaa abdallah moo fay jib waaw ndax malaaka yooyu xamee wu ñu tiitar ba nga fi nekkee tiitar bi nga rangoo fii ndombu baat ndombu tànk bi nga fi rangoo lala nit ñi di wooyee malaaka yi xamuñu loolu de malaaka yi lu ñu xam mooy abdallah yaa abdallah jaamu bi yàlla man ko ana kan nga doon jaamu kan moo doon sa borom kan nga jibbal sa bopp mu doon kila moom mooy kan leneen lu wuute yàlla bu dee kooku nga jébbal sa bopp question bi du méngoo ak réponse bi waaye bu dee yàlla nga jébbaloon sa bopp yàlla nga reconnaître ne mooy sa borom keroog da nga naan allahu rabbi yàllay sama boro ñu ko seene ne kooku mucc na texe na ñu naan la yaa abdallah yow jaamu yàlla bi waman nabiyuk ana kan moo doonoon sa yonent bu fekkente ne woon danga doon topp yonent bi di déglu ndigle yonent bi di xeeñtu jàngale yonent bi di topp tegtale yonent bi keroog danga naan muhammadun nabiy muhammad moo doon sama yonent waaw am yeneen riwaaya ñëw ne dañ lay laaj waajooju ñu yónni loo xam ci moom waa jooju kenn du wax turu Muhammad kenn du wax yonent bi dañ la naan waa jooju ñu yónni ci yow loo xam ci moom question bi dañ la koy xaw a lëndëmal ñu xool ba xam daanoo nga bàyyi xel njàngale yonent wi waaw waa jooju ñu yónni ci yéen ana lan nga xamoon ci moom ana lan nga accueillir ak par message ba mu doon véhiculer loo ci jàpp wala xale bu jigéen nga est-ce que daanoon nga muuru say cër ndax yonent bi nee na yàlla daka xamal ne na wax jullit yu góor ñi nañu wax seen seen soxna yi nañu muuru waaw yàlla daa xamal yonent bi ne na wax jullit yu jigéen ñi ne nañu muuru seeni cër nañu defar seeni toggin ci penc bi ñu bañ nuroo nuroolu ñeneen nit ñu dul ñi waaw bu dee yow xale bu jigéen nga dañ lay laaj kooku noonu ne nanga nga wàccee sa baat na muur say cër na nga takko kersa ak nanga am orma ci sa bopp noo mel ak bu sell woowu noo mel ak woowu wallahi bu fekkente ne woon yow daal da nga obtenir yonent bi mooy sa royukaay ci lépp keroog da nga naan yonent bi muhammad nabi bu dee xale bu góor nga yow noo meloon ak njàngale yonent bi est-ce que la yonent bi tegtaloo ne noonu la xale bu góor jullit xale bu góor noonu la war a mel est-ce que noonu nga opté est-ce que daanoo nga soloo nii est-ce que nga meloo ni est-ce que daanoo nga toppo say ñaari wuyjur est-ce que daanoo nga am yërmande si nit ñi est-ce que est-ce que que hmm? bu dee teg nga sa tànk fa yonent bi rëdd yoon bu yonent bi créé bu fekkente ne APS boobu nga teg sa tànk keroog danga nga naan muhammadu nabi noonu la ñuy jàppoo ñu àgg ki yow yaa abdallah yow jaamu yàlla maa kitaabu ko téere yi bari nañ lool ci àddina si ana ban téere nga opte loolu mooy sa téere bu dee alquran nga faale nga safoo nga faale ña ko yittewoo nga faale ña ko jàng ngay comp as tuut ci sa poche di ko yóbbu ci daara ji di taxawee ndongo daara yeeg taalibe yi ak ñay jàng alquran ak ña koy jàngale bu di ñooñu nga safoo de ah keroog bu ñu la laajee ana wan nga opte mu doon téere bi nga safoo ci kaw àddina si giiru dund bu dee alquran moo doonoon sa tànneef da nga naan alquranu kitaabi alquran de mooy sama téere waaw noonu la ñuy dem ak yow ci quatrième question bi ñu naan la yaa abdallah yow jaamu yàlla bi o maa diinu ko ana lan moo doonoon sa diine bi nga xamante ne fa nga sukkandikoo di si jaamu yàlla bu dee islaam la da nga naan al islaamu diini diine ba yonent bi andi jëlee ko fa yàlla mu doon islaam moo doon sama diine ba tax na yàlla joxe na avertissement bu toll ni wa man yabtaghi ghayra islaama diinan képp ku jàpp leneen lu dul islaam nga defe ne mooy diine yàlla nee na duñ ko accepter falan yuqbalu min duñ ko accepter non seulement duñ ko accepter waaye wa huwa yawmal axira min al xaasirin kooku keroog bés penc dafay bokk ci way pertange yi kon ba tax na diine islam muy diine bu yàlla reconnaître fa moom ba tax na yow doomu aadama rawatina yow jullit bi buñ la laajee keroog sa tiraayu bàmmeel ana lan mooy sa diine bu di diine islam nga opté mu doon sa diini da nga naan al islaamu diini islaam de mooy sama diine yal nañu ko yàlla yombalal yal nañu ko yàlla jàppandalal amin ya rabbal alamin mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci béréb bi mbokk yi tey ñoo fas yéene ànd yéen ci buntu yu fasante ko ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu am njëriñ ba tax na euh, sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ñu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam innama yarhamu allahu min cibaadihi arruhamaa innama yarhamu allahu min cibaadihi arruhamaa waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li fi nekk kañ mooy ña yàlla di yërëm ci jaamam yi mooy ñala mbokk yërëmande jëmale ko ci nit ñi nee ña yàlla di yërëm fi ci addina ak ëllëg keroog bés pénc mooy jaamu yàlla yàlla mbokk yërëmande jëmale ko ci seen moroomu jaami nga bëgg yàlla ëllëg keroog bés pénc xattaa laata ngay jóge ko ci dund bi a bëgg yàlla yërëm la del yërëm ña yàlla nattoo nga nekk ak ñoom léegi-léegi yàlla teg nit ki nattu ju ni mel xool ba xam dinga am xolu yërmande jëmmale ko ci kim la nattoo boo ko waxee du la dégg boo ko digli du ko def boo ko teree du ko bàyyi xeetu nattu la ba yàlla di nattoo jaamam xool ba xam dinga am xolu yére yërmande jëmale ko ci kooke mu nekk ci sa keppaar muy lekk say wërsëg muy tedd ci sa teraanga moo ne boo ko waxee du dégg boo ko diggee du def boo ko teree du bàyyi boo ko woowee sax mën naa jël temps ba ko soob ñëw wuyu la buy ñëw tamit mu ànd ak benn arrogance bu toll nii du la sax jox gédd bu toll nii ba xam voilà loolu yëpp yàlla di xool ba xool ngay ànd ak moom ci melokaanam ba mu melo yàlla di la ci teste léegi-léegi mun naa nekk euh, ki nga bokkal géño léegi-léegi mun naa nekk euh, ki nga bokkal meen léegi-léegi mun naa nekk ki nga meññ léegi-léegi mun naa nekk soxna si léegi-léegi mun naa nekk euh, collègue léegi-léegi mun naa nekk koo xamante ne yaa nekk ak moom ci béréb bi nga xamante ne yéen a fay xëyandoor di fa gontandoor ànd ak loolu yëpp yàlla day teste xool ana wan xol nga war a installer sa diggante kookee ba tax na yonent bi ne la attention avertissement la de innama lu fi nekk mooy yarhamullahu ña yàlla di yërëm min ibaadihi ci jaamam yi mooy kan arruhama ñalamboo yërëmande jëmale ko ci ñeneen ñi dangaa bëgg yàlla yërëm la day yërëm nit ñi dangaa bëgg yàlla boole la ci ñu yërëm fii ci àddina ak ëllëg keroog bés pénc del yërëm nit ñi ña nekk ci say kilifteef dee leen xoolee botu yërmande del am xolu ñewent su ñoom di yi nga di leen yërëm waaw xataa ku nekkul ci sa kilifteef sa na ko xoolee botu yërmande yow daal yërmande na doon basan ba ngay lal sa digganteeg ñeneen yi xooleel jaamu yàlla yi botu yërmande ëmbal leen cofeel ak yërmande ci sa biir xol bu dee amoo dara looy partage ñoom mais nang leen xoolee nang leen ëmbal yërmande bu leen ëmbal safaanu yërmande waaw koo dégg ne daa loru nel yal na ko ko yàlla teggil yal na ko ko yàlla defal jéggalaa koor yal na ko ko yàlla defal yiw gannaaw si yal na ko ko yàlla defal mbégte noonu ngay installe xolu yërmande si sa jëmale ko ci mbindaafoonu yàlla yi su ko defee nga bokk ci ña yonentu bi wax ne innama yarhamu llahu min ibadihi lruhama ña yàlla di yërëm ci jaamaam yi ñooy ña lambok yërmande ba tax na yàlla ñu yàlla boole ci ñamuy yërëm ndax bokk na ci turam yu sell yi arrahman mooy borom yërëmande bu mag ba muy partaase ak mboolem mbindaafooni ci dundu àddina si waaye bokk na ci turam yooyu arrahim mooy borom yërëmande yaa muy kay partaase yërëmande ba mu lamboo ñëkk a góom keroog kon ña yàlla di yërëm fi ci àddina ak ëllëg keroog bés mooy ñu lamboo ko yërëmande jëmale ko ci mbindaafoonu yàlla yi yal nañu yàlla boole ci ñiy yërëm jaamu yàlla yi ba yàlla yërëm ñu amin ya rabbal alamin mbokk yi xadiisu hurayrata ba ñu toftal ci xadis bu jiitu mooy an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal kaana rajulun yudayyinu nnaas fa kaana yaquulu li fataahu ida atayta mucsiran fatajaawazu canhu lacalla allahu yatajaawazu canna falaqiya allahu fatajaawaza canhu sahihul muslim mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot hadis bi jëlee nañ ko si saxaabi bi ñu naan abi hurayrata radiyallahu anhu yan na ko buur yàlla gërëm abi hurayrata nee na naka suñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ne kaana rajulun nekkoon na ab waay woo xamante ne ci jamono yu dayyinu naasi da leb nit ñi da doon lebal nit ñi waaw da doon jël alalam di ko lebal nit ñi waaw su ko defee dafa am ay employé yay wur ci ñooñu muy lebal mu di leen wax ne bu ngeen àggee ci nit ñi na ngeen récupérer la ma leen lebaloon waaw kaana rajulun nekkoon na ab waay joo xamante ne yu dayyinu naasi daanoon na jox nit ñi ngir mu di leen lebal waaw xaalis la boo xamante ne da ko doon jox nit ñi comme lu ñu gisee nii jamono waaw ñuy lebal nit ñi ñuy liggéey waaye yonent bi nee na waa ji de daanoon na wax xale yu góor comptable yay dem di ragle nit ñi ñamu lebaloon daala doon wax gaayaam yi ña mu pour ñu dem régler compte ci ña jëloon xaalis bi waa ji daanoon na leen wax ne ida atayta mu'siran bu dee dangeen ñëw ci ki am jafeñ-jafeñ ngir mu fay bor bi fa tajaawaza anhu na ko jéggal bu dee dangeen ñëw ci sharif mu fekk sharif mu doon ke ñu jox xaalis bi ngir mu liggéey ci ñu lebal ko waaye bi ngeen doon ñëw ci Sharif fekk Sharif loxoom jotul ginnaawam dafa am tuuti benke ñenke ci xaalis biñ ko joxoon na ngeen ko jéggal de boo ko teg pression de jéggal boobu ngeen ko jéggal nag ah xëy na ñu nit laallallahu yatajaawaza an na xëy na yàlla jéggal ñu ñu nit suñuy bàkkaar waaw waa ji lii la doon wax gaayam bu ngeen demee ki am jafeñ-jafeñ bu ngeen ko bu leen ko bunduxatal bu leen ko teg pression bu leen ko sonal na ngeen ko jéggal parce que dafa am jafeñ-jafeñ daa toll diggante loolu ngeen koy jéggal nag ah amaana ñu nit yàlla jéggal ñu de na ngeen sóoraale loolu de gaayam ne ko waaw dégg nañ la léegi gaayam bu ñu ñëwee ñu fekk ka ñu jox montant ba mu war a delloo ñu fekk ko mu yore problème a ah, ñoom it dañuy appliquer la leen patron bi wax dañuy ñëw ñu ne ko waaw kon amul problème comme nga ne temps yi dara doxul affaire yi dafa dëgër amul problème jéggal nañ la bi keroog jamono di neex waaw waa ji daal nii la nekkee ak employé mi bu ñu dajee ki am problème dañ ko teg pression dañ koy jéggal ñu ne ko waa kon ba beneen yoon ok baax na bu jamono neexee rek ñu lay xaar bureau ba ok kay daal di dem waa ji nii la nekkee ba keroog mu faato yonentu bi ne bu mu faatoo fa laqiya llaahu mu dajeg boromam yàlla ne ko yaa nekkoon ci àddina di jéggal nit ñi ca la ngeen doon dimbale la doon dimbalee ñu di si suqaliku ku ci am problème doo ko teg pression ba tax na sa buy ya doon dem récupérer montant ba nga lebal nit ñi dang leen doon wax ne ci képp koo xamante ne ñëw ngeen fa moom ngeen fekk mu am jafeñ-jafeñ mu nekk ci diggante na ngeen ko jéggal nest loolu nga doon wax sa gaañ waa ji ne ko waaw waaw loolu laa doon wax sama gaañi de su ko defee sa gaay jéggal ko ci lang leen sant ngir ñu jéggal ko waa ji ne ko waaw waaw sama gaay noonu lañ doon def de yàlla ne nag léegi man jéggal naa la jéggal naa la comme yow yaa nekkoon ci àddina di jéggal nit ñi ci tolof tolof ba ñu am ba mënuñu laa delloo la leen jox ma ne jéggal naa la waaw kon ñu gis ne képp ku bëgg yàlla jéggal la del jéggal nit ñi képp ku bëgg yàlla yërëm la dël yërëm nit ñi waaye contraire bi tamit képp ku fi nekk di bundu nit ñi di leen lor di leen sonal moytul wóorul de ba tax na nit ki rawatina yow jullit bi danga nga war a doon kuy am yaakaar fa yàlla xamal ne sa borom buur bu baax la xamal ne sa borom buur bu yiw la xamal ne sa borom ah buur la boo xamante ne foo natt yaakaar ba nga am ci moom weesu na ko ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñuy won ci hadis bi buntu raja buntu yaakaar baabul fadlu raja buntu buy wax ci ngeneelu yaakaar fa yàlla jëlee nañ xadis bi ci sahaabi ba yaree ci keppaaru yonent bi di anas bin malik radiallahu anhu xadis bi anas wa an qaal jëlee nañ sa xadis bi ci saxaabi ba ñu naan anas nee na samitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi dégg fa muy wax ne qaala allahu taala buur yàlla adduna ne xamal na ma ne keroog bés penc day jàkkaarloog doomu aadama wi yàlla ne doomu aadama bi ne ya ibnu aadam ya ibnu aadam yow doomu aadama bi innaka ma dacawtani wara rajawtani gafartu laka ala ma kaana minka wala ubaali yow doomu aadama yaa nekkoon ci dund bi di def lu la neex waaye nga am yaakaar fa man di mel la la neex waaye nga am yaakaar fa man ba tax na nga di ma ñaan nga am yaakaar fa man te la may ñaan dina la ko nangul nga am yaakaar ne la may ñaan ngir ma jéggal la dinaa la ko jéggal jéggal naa la ko ca la nga nekkee melo ba nga nekke yaakaar ba nga am ba nga di ma ko ñaan jéggal naa la ko te faalewu ma dara ci nekkin ba nga nekke yabnu aadama yow doomu aadama law balagta zunubaka anaana sama summa staghfartani ghafartu laka wala ubali yow doomu aadama bi xamal ne say bàkkaar bu dee toll na ni niiru asamaan yi nga nuuru ci bàkkaar taq ci rib bàkkaar yi bari toll ni niiru asamaan yi topp nga jéggalu ma nga sàkku ci man jéggal nga ñaan ma ngir ma suturalla la dinaa la jéggal boole ko suturalla te duma faale leen ca la nga nekkee woon ci lu ñaaw yabnu aadam yow doomu aadama bi innaka law ataytani bi quraabin al innaka law ataytani bi kuraabil ard xataaya summa laqaytani wala tushriku bi shay'an la ataytuka bi quraabiha magfiratan rawahu tirmisi wa qaala xadisun xasan mbokk yi yonent bi nee na yàlla dani doomu aadama bi yow doomu aadama bu dee danga dikkee fa man nga ñëw ak bakkaar yu toll ni peppi suuf nu ñu bare ci ay bàkkaar waaye ànd ak bàkkaar yooyu nu ñu bari bari bari bari nga doon faatu danga faatu fekk bool bokkaalewulook yàlla dara dinaa la soppil bàkkaar jooju mu doon tolluwaayu njéggalaakoor ba tukkee ko fa man yàlla sa say bàkkaar dañoo bëri mel ni peppi suuf bi nga doon faatu fekk bokkaalewulook yàlla dara bokkaalewulook yàlla lenn nga deewaaleek wiital yàlla ci moomelam nga deewaaleek wiitaayu yàlla mooy tawxiid bokkuloo ci ñuy bokkaale yàlla dara yàlla nee na tolluwaayu bàkkaar yooyu nañu toll ni peppi suuf yi toll dina la ko soppil def ko njéggalaa koor bàkkaar ñu bëri bëri bëri bëri nañuy toll ni peppi suuf moo xam waaye ba nga doon faatu faatu nga fekk bokkaalewuloog yàlla dara mbokk bon bokkaale yàlla moo bon nañ leen moytu bokkaale bokkaale wóorul bokkaale day nax saa yu jëf bokkaale day tax nga pert say jëf yu baax yi moo tax yonent bi ne yàlla dane doomu aadama ne innaka law ataytani li fi nekk yow dee bu dee danga dajek man bi xuraabil ardi ci péppi suuf xataayan ci bàkkaari summa laqaytani gannaaw si nga fekk ci ma laatu tushriku bi shay'an fekk bi nga doon faatu deewaale nga bokkaalewuloo ko yàlla dara yàlla ne la ataytuka bi quraabiha maghfiratan ding ma fekk ma waajalal la lu toll ni peppi suuf yi nu ñu toll na sa bàkkaar yi toll ci njéggalaakoor xanaa yàlla moo mun a jéggal jaam bi ah kañ xanaa yàlla mooy kiy jéggal jaam bi kañ xanaa yàlla fi nekk di buur bi jéggal jaami te du faale dara ah kañ kon mbokk yi yal nañu yàlla faat ci tawxiid yal nañu yàlla wërsëgal ba ñuy dajek moom ñu doon ña koy wéttal ci tuuram yu sell ak melokaanam yu kawe yi comme na ko yonent bi jàngale yàlla ñu yàlla sepp ci ñuy bokkaale yàlla ak dara ñu bañ a bokkaale ki yàlla ci pas-pas ñu bañ a bokkaale ki yàlla ci kàddu ñu bañ a bokkaale ki yàlla ci wax wala ci jëfin yal nañu suñu pas-pas sell mu doon pas-pasu wiitalu yàlla yal nañu yàlla wërsëgal pas-pasu wiitalu yàlla yal nañu yàlla wërsëgal làmmiñ ja koy tudd di ko sant di ko wéetal ci melokaanam yu sell yi ak turam yu màgg yi amin yaa rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nasalullaha jalla wa ala an yajalana min alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma aimmatana wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha taqabal allahu minna wa minkum saalihu al amal jumaa tayiba mubaarak nasalu allaha jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana amin ya rabbal alamin aqulu ma tasmacuun baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikri al hakim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu